wax nga nu baayam Abdoulaye takki nu soxnaam wax nga baay ba ñaani woon baay ba ko may sëy ba jaxaay wax nga ko wax nga rasool kañ la juddoom def leen nii ci sang ba ci Madina wax ka ko dooñ wax nga ña ndokkeel yaayam bakkanam leer ya fa jolli way nga ko bakk rasuul kañ la juddoo wakk ko doñ wakk ña doon ndokkeel yaayam bakkanam leer ya fa jolli way nga ko bakk rasuul kañ la baay ba faatu wax nga kañ la yaay ja faatu wax laatulaay ba ci alal mu doon ko ba Rasuul kañ la takkoon Xadiija wax la mu jëloon ci ay gëléem gi ca ne woon Xadiija moo doon woy ko gàmmu rayoon ci cit ga jaam yëfandikoo di fecc ngir xumbale woon ci tam ga mawta wayu ga toon kañ la koy yàlla yónni woon kañ la koy yàlla yónni woon pour wa ko jibril fekki woon aya ba jibril wàcce woon lépp jaxaay wax nga nu ko wax nga gudde kamora ñaan wuy ji ki biin doon asamaan yonent yaak waa asamaan nañu ko teeru wayu ko ko wax nga nu gàddayu ko wax nu ña doon teeru rasool wax nu ña doon wayal rasool ci biir madina topp ko kooku mooy sayyiduna eh, Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le maire Diop si gis naa yóbbante bi bëggoo ma wax ko waaye ndànk laa ko wax ci micro bi nag moo tax Serigne Babacar ni ko bàyyi rasulullah yaa man ataa bi xilaasin faayiqin durara ay baay قد جئت ما يعجب السودان والخرراء أي باي زينت مسند على خير البرية من أي باي قد أنزل الله في أمدحه سوراء أي باي سجيجو خم خم جي تفسكي كلا قيم وبحر علمك يكفي الناس ساحل يوباي سيان في قريب بيد شمرا اي باي يا جل جن خو خم خم ما يكو وخم بانو جفه أما أنت أتقنت أكملت الجميع وقت يا أنكحت من عملي علما كفنت شرع أي باي وكل فن لسان الحال قال لكم يا باي ألق العصا تلقى من تيسير ما أسرع أي باي هذا كتاب نفيس قد جمعت يوبا فيه الأحاديث والآيات والسيرة غنيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل الله خالقنا غني باي سبحان من زين الأخلاق والسيرة غني باي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على غنبا هذه العطية من شيخ كفى وزرا أمين باي وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا أمين باي إخلاص يا ربي والتوفيق واليسر أمين باي الحمد لله رب سنتي الله ورنا جام الحمد لله رب سنتي الله ورنا جام الحمد لله رب يكو سنتي الله لو خوتي الحمد لله رب سنتي الله ورنا جام الحمد لله رب سنتي الله ورنا جام الحمد لله رب رب الوحيد عاجب الحمد لله وهب النعم الحمد لله رب الوحيد سبتي الله ورمجا الحمد لله رب الوحيد سبتي الله ورمجا الحمد لله رب الوكيل الحمد لله رب الوكيل sant yàlla war na jaam alhamdulilah rabbi sant yàlla war na jaam alhamdulilah rabbil wahid alhamdulilah rabbi الحمد لله رب الوالدين سبتي الله ورنجام الحمد لله رب الوالدين الله ورنجام الحمد لله رب الوالدين الحمد لله رب الوالدين وابن الحمد لله رب الوالدين سنتي الله ورنجاب الحمد لله رب الوالدين سنتي ورنجاب الحمد لله رب الوالدين الحمد لله رب واهب النعمين الحمد لله رب الوالدين يوم نالت بي يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بدا للجنس من قرباني والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان برم قيد جايني وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين بي وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باهر قال أم الكتاب بخط النوران يا سيدي يا سيدي يا سيدي xale yi def la nii man lii bi mislika mut atal ajfaani ya sayidi ya sayidi ya sayidi ya sayidi ya sayidi man lii bi mislika lil fuaadi laani borom gaynde jaay ne ya sayidi ya sayidi ya sayidi ne yal na la yàlla fay ndawi jamono yu mel ni soppay sëñ Babacar ak Alaaji Maalik ني dundal سا tariqa bi xale دو دك جزاك jaazaka rabbuka an banil كر per موي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقدم لما سبق ناسعك بالحق هادي لصدك المستقيم ولا علي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح المولق والقدم لما سبق نصر بلاقيه والهدي لأسرارك المستقيم ولا علي حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح المولق والقدم لما سبق نصر بلاقيه والهدي يا ساد كم مستقيم ولا علي حق قدري ومقداري عزيز وهل لنا مئة تهليلا تحس جزاء مغنيا جليلا نينا بروم دارا جيني بو سانغو استغفار سول سيريج صلاه الفاتح تير تشبي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 ديخ دباخ نينا سو من حضر يلا دل تدو يلا ذكر الإلهي سلم للراقي لحضرة الحي العديد الباقي, الباقي. ثم اثنتي عشرة في كماله تقرأ من جوهرة الكمال الأمين ني أنا صبي الأمين واي غورغي جاكارلوك ñun ne cheikh na tidiane yi dañi maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam noo mel mu ni ko cheikh da nga bëgg xam ni ma mel mu ni ko waaw nee mu ni ko indil kayit ak bindukaay ma digte la ni ma mel nee sama maam moo ma tiim naa ma waxal taalibe tiijaan yi ak adduna bi nan nii laa mel te mooy اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية واليقظة متحققة الحائطة بمركز الفول والمال. eh loolu ko ko dégg xam ne ràbbe wuñ ko fii ونور الأكوان المتكونة الآدمي ساحر الأقربان البرق الأستعي بمدن الأرباح المالات لكل متعرض من البحور والأواني ونور كلامع الذي ملأت به كونك الحائط بامكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاقوام صراطك من الاسلام اللهم صل وسلم على طلعه الحق بالحق كنز الاعظم افادتك منك اليك احاطه النور المتسام صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها هي waaye ku nekk nga dendal jox ko loxo ne ko baal ma ak naa nan ci cheikh bu nu bëggee gis xalifa mbay ak ngërëm yaa mooy leen ci Cheikh bu ngeen bëggee gi seen borom ak liggéeya ala nabi Muhammad xewal gu sax ak musal ya kadaka alun wa saxbun bi di ak ngërëm يا ميلان الشيخ بقيت بقي قسان برام أجلك يا كذاك آل وسحب ميويدي وي أنقرم يا كذاك آل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi yëkkati sunu kaddu di nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam waaye ñu may ma nuyu bu tedd boobu ñuy jëme ko ci ku tedd muy alxalifatu al aamu li taaifati tijaani sëriñ Ababacar Sy Mansour Sy di ko nuyu nuyu bu tedd di ko nuyu nuyu bu ànd ak worma waaye itam di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba li nga xamante bii yéene na ko liggéeyal maamam gi tedd ja cheikh seydil xaaji malik yàlla na ko ci yàlla may ndam ndam loo xamante ne fawxa na bépp njort liggéey yi mu ko naal te benn ëpp ci yaakaar naa jumaa ji muy tabaxal maamam eh, naal bu rëy bu mu song songal ko magam yi ko fi jiitu songal ko way juram ji ko fi jiitu waaye itam songal ko maam ju baax ja yàlla na ko àggaleeg jàmm yàlla na ko inauguré ji ñu ànd kook moom te mu jiite ko lu yàgg lool tabaarakallaahu macha allah bu loolu jàllee may nuyu sang yu baax yi fi teew xëj na dañ naan ku lim juum ñenn ngeen doo juum da dul matal waaye suma ci seppee ñenn rek dina yóbbaale ñëpp incha allah di ci jiital sëñ Mansour si dabax di ko ziyaare di ko wàccee bu baax wàccuwaayam di nuyu tamit excellence sëñ Mansour si Jamil moom tamit di ko ziyaare di ko wàccee wàccuwaayam bu baax a baax di nuyu tamit sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Mansour moom tamit di ko ziyaar bu baax ràññee ci tam bu baax sëñ Sidi Ahmed bu sëñ mansuur di ko ziyaare di ziyaare itam sëñ Moustapha si mom seigne euh masour seigne Abdul Aziz Al Amin seigne masour mu seigne Babacar si la bëggoon njëkkee mom tamit diko ziaré di ziaré tam bu baax seigne mustapha si Al Amin nga xamne mom dama nan man ak mom ño bok terrain bi bis bu nek waar bom xamna ma xam. ñoo ci xëyandoo di ci wàccandoo te loolu def na ko defaale la ko yéen ñëpp wuutu na leen ci may rafet rafetlu taxawaayam bu baax di eh, nuyu tamit bu baax sëñ Babacar Cissé sëñ Babacar Cissé maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la ndokkeel tam ki sa bésu way jur wi ak sa bésu maam bi la ma la waxoon sama bureau rek nuurul ala nuuri yàlla yàlla laf cat Ah, Nous sommes bobu nak mang koy def ki sama tour ak touru mbollem délégation bi nga xamantene bi la nañ ma muy délégation ma monsieur le maire le premier magistrat de la ville de Tivaouane monsieur euh, Demba Diop ñu gën koo xam ci ànd itam ak euh, ki nga xamante ne fi euh, teewal la présidente du conseil euh, départemental muy l'ancien maire de Tivaouane moom tamit et eh, na ak man ci eh, délégation bi and na ak man le commissaire de police eh, le commissaire urbain mom tamit commissaire Yeju, André nañu bokk nag itam le commandant Fofana était sapeur pompier ak ñeneen nag ñeneen ñoo xamante ne bii ñoo ngi ci biir délégation bi di leen indil nuyoo ak sant ak ay ziyaare sunu ay kilifa nga xam ne ñoo ñu yebal fii ki ci jiitu mooy monsieur le de la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw di leen itam indil nuyoo ak ziar yu tedd sunu kilifa monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye diom te nuyoom tam mooy nuyoo gouvernement bi yëpp mooy nuyoo tam président de la république di santaat yàlla sunu borom bu baax bim ñu mayee ñu fekkee jataay bu mel nii muy jataayu yiw mooy jataayu barke muy jataayu nangu ñaan di jataayu sax faju ajo dinaa wax tuuti rek ci ki nga xamante ne bii moom lañ jagleel guddi gi soxna umul xayri radiyallahu taala anha wa nafaana allahu bi barakaatiha yal nañu yàlla tas ci barkeem damay wax ne soxna umul xayri day ñaari mbir yaakaar naa doy na sëkk ci tegtal kan mooy soxna umul xayri bi ci njëkk mooy waañam wa nekk fee barki démb euh, excellence bi may def tour di évaluer engagement service technique yi ci ziar général bi Euh, ànd kook sëñ mustafaa ak koskas ñoom xalifa dañoo dem ba dugg ci waañ wi mu doon bu njëkk ma fay dugg waaye ba ma fa duggee rek lii sëñ Moustapha sëñ Mansour si dabaax wax ci moom laa jàngat ku xool waañam wa xam ne bu ñu la ndey daara la ñépp mën ko nangu buñ ne ummul masaakin la ñëpp mën ko nangu buñ ne ummul fuqaraa la ñëpp mën ko nangu loolu moom commentaire bi jarul jarul guddal ndax lu lu lu ne fàng la jëf la beneen bi mooy guddi gii guddéem gii kuy nelaw du ko am ay ay pexe mayewu ko jëf la jëf ju yàlla nangu la moo ko may lii kon moo tax ñun santaat yàlla bi ñu duggee ci biir turam bu tedd wow umul xayri yàlla na nga dugg ci biir ñun ñépp ci yiw wa yàlla nañ ko yàlla fayal gudd gu bis bu tedd tedd nii ak guddi gu tedd nii ak kilifa yi macha allah sang yi fi teew buñ fi ñëwee faw ñu sàkku ñaan te ki ci njëkk li mooy ñaanal réew mi sunu senegal gi nga xam ne amuñu lu dul moom yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli dal yàlla na fi yàlla dolli tappe xol ni ko maam Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh daan waxe waaye tam ñu ñaanal njiitu réew mi mi nga xamante ne bii capitaine bato bi yàlla dolli ko kàttan dolli ko wér ba mu àggale yéeneem ci réew mi ak Afrique ak àdduna bépp yan bi ñu ko yan ci réew mi na oyof ah, ndombo tànk tam gi ko takkal barki démb mu jiite Union africaine na ko ci may ndam ndax lolo yaakaar la juñ am ci moom waaye tamit kóolute goo xam ne Afrique gépp am nañ ko ci moom te mu ñëw ci jafe jamono joo xamante ne bii àdduna bi yëngu na fi tàkk bari na waaye yal na yàlla may ko lépp saafaro ci loxoom ñuy sàkku tamit ñaan yàlla def dolli jàmm ci àdduna bi fépp foo xamante ni bi ay ma fay takk yal na ko yàlla fay ak ndox mu sedd ndax maam alaaji abdu daan wax ne aw ay fu mu tàkkee lu sori sori te fayagut bul jàpp ne mucc nga ci kon ay way ñuy dégg ca Ukraine yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla saafara te loolu nag dara ëpp ci ñaan dara ëpp ci ñaan dama mas a toog ak sëñ Abdul Aziz Al Amin ca Bulel booba ma nekk préfet département Malem Hodar mu ñëw fa ma yëg ko ñëw di ko ziar si keroog ki néegu boppam bi la ma dugal fauteuil bi mu toogoon daf ko wàcc jox jox ma ko mu toog ci chaise bu mel ne bii ma toog nii ma bañ mu ne ma déedéet te man sax fii moo gën ci man ndax médecin yi fii lañ ma li lañ ma fii lañ ma gën a digal mu may ñuy waxtaan du ma ne sa waxtaan daf may jàngal boo doon wéet ak moom dana la jàngal ci diine dina la jàngal ci histoire dina la jàngal ci politique dina la jàngal ci géopolitique ak yeneen ñuy wax ci situation àdduna bi ni mu jaxasoo ba mu yàgg maa moom nga dajee ci ne ñaan mën na lu nekk mu ne mu wax ko ma koy wax te yëgoowuñ ñu tombe ci loolu li ma ci jëlu mooy ñaan mën na lu nekk ay wële ci Ukraine ñaan xaju ci te jataay bii yombut jataay bii yombut de kon nag sëriñ bi ñu ngi ah joyal jàmbat yooyu yëpp ak tawat yi ndax dañ ne boo malaat su ñëwee ci médecin da koy wax jàngaroom kon tey moom fala budda min shakwa du mën a ñàkk ndax kat la fi la fi nekkoon démb jógu fi sëñ Babacar si jógu fi Cheikh Seydi Aji Malick si jógu fi ndax kat wal baladu tayyibu yuxruju nabaatahu bi izni rabbihi olof nee na garab lañ nga fa gëjee mu fay jebe kon sëriñ bi ah ñu ngi leen koy diis ci turu président de la république yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi ay wële ak ay weneen wu mel ne moom yal na yàlla fay ko ñu ngi koy ñaan ci barke guddi gi ci barke barab bu tedd bii ak kilifa yu tedd yi ak mag ñi nga xamante ne bii ñu ngi fii loolu laa bëggoon a wax di santaat sunu borom bu baax di ñaan yàlla euh, ziyaara suba bi yàlla nañ ci yàlla defal lu kawe sunu jot sëñ euh, Babacar Cissé wax na ko bi ñu defee CDD le 16 février bi passé ba ñu demee bay tëj dama ne sëñ Moustapha Al Amin man de sama ambition te c'est légitime sañ naa ko mooy seete mooy ziar at ren jii yàlla na fow xa bépp ziar bu ñu mën a def ci wàllu organisation ak réussite te ba ma koy wax xamaguñu woon ne CRD dina am xamaguñu woon sax ne réunion nationale dina am kon nag loolu laay ñaan yàlla na yàlla wuyuñu ci te at mu jot ñëw raw ma ca des lii laa bëggoon wax di jéggalu di ñaanalaat xalifa bi yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ulix walxatim lima sabaq nasiri lxaq bilxaq walhadi ila siratika mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdari lazim jërëjëf بارك الله doomu daara la de tabarakallah ndeysaan sëriñ bi mu fi door bi ñu koy door affecté dafa ñëw rek soxnaam mucc doom ju góor mu tuddee ko alxaaji Abdou Aziz Sy Dabakh te it doomu soxna la kon xale boobu yàlla na yàlla mot li yéene mag ñi ci moom kon ñu jël kàddu gi jox ko ki xalifa bi yebal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Dabakh bismillah dama sonn moo tax may jëkki jël kàddu gi dama sonn الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق مقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه أسأل الله أن يجعل قلوبنا جميعا متحبة في الله وأرقى وأسمى درجات الإيمان هو المحبة في الله ويكفيك سرورا وفرحا أن يقول الله تبارك وتعالى وجبت محبتي لمن يتجال للجالسين في الله للجالسين فيا وجبت محبتي للزائرين فيا وجبت محبتي لمتب lii basiliina fii waaw yàlla nee na waral naa sama cofeel ci képp ku nga xam ni dangeen ngeen di ziarante képp ku nga xam ni dangeen ngeen di joxe képp ku xam ni waaw ngeen di seetante yooyu yëpp nag dafa daje ci tànt bi tey yëpp nag

Moi, suis un homme man ma un fa qui fekk ma fa fekk ma fa kon mag ñi lu nu gisoon dana am parce que ñi ngi à la fin au début au début d'un cycle et un début d'un siècle début cycle et ak début siècle bobu mag fala bu de mu feeñ fi li tax nak ma jël kàddu gi sëñ bi dama bëggoon bala ñuy pare waxtaan wi ñu fàttaliku sunu papa Malik. ndax veyu ziar bi ak gàmmu gi le 13 avril si le jëloon rajo bi annoncé ni nanu arrêté lépp le lendemain doon ziar bi man maa ngi nekkoon si yoonu saneen di dem waalo di gàmbu gi bi mu ko déggee dama ñëw wax waa saneen maa ngi jëloon ngaan na sàll jógee fa dem ma ni waa saneen jox nañu ndigal gàmmu gi kenn mënu ko def tey si guddi xam nga wàllu wàllu yi ak seen ful la ñu ni ma quarante nag lañu ren yi <laughs> il faut ñu gàmm ma transformé gàmmu gi def ñaan kon tey suñ dee dox ba lii am fu laa buddee ñu bàyyi ko xel di bàyyi xel sëñ Moustapha bu sam Pape Mansour moom tam dem na si diggante bi ñu bàyyi xel sëñ Abdoul Aziz Sy bu Seydi Jémi moom tam dem na si diggante bi ma bëggoon rek ñaan yàlla li dignité ni sama gañ yi suñu yee leen di dawalal seen film si aduna ñu gis ni ah ak Alioune Sall Ndeye Astou wa waaw Sall ak Ndeye Astou wallahi ñoo ñëpp nekk ak wa vous ñu bëggoon rek yàlla wax si gaayam ni sama gaañ suñu ñëwé dam leen di dawalal seen film ci aduna mu ni sum leen dawalalé seen film so xolé seen xar-xaru kanam mbégte rek nga ci gis ñu bot seen loxo di doxantu ci aljana bu juhun yawma izin na'ima li saayiha radiya fi jannatin aaliya la tusma'u fiha daghiya fiha aynun jariya fiha sururun marfu'ah wa akwaab mawduu'a wa namaariqu maxfuufa wa zaraabi mabsuusa defe naa fàtteegu ma de ñoom ñaar mën naa tëri seen kanam gàkk ñu gàkkan ci man ndax ñoo bokkoon daal waaw doon teel bokk daara kër gi si Haaji Maalik jànge maqaamaatul xariir sunu maam Aman Njaay maa bay jàngal ka maqaamaatul xariir kër googu la ñu jàngee ba wàcc Alxuraan si sëñ Maamu Njaay ma bëggoon rek ñu bàyyi leen xel ñooñu nga xam ni ñooñu ñoo dem ñu ñaan rek li sama si Xaaji Malik wax ni inal al ala ala tazyin yowma qudumi ruuxihi taarika dunya ala zulami nee na yonent bi bi mu jógee fii dem ñi nekk ci kaw suuf ñoo triste ñoo nekk ci lëndëm waaye ñamuy fekki àjjana xam na nu kan mooy ñëw gën gi mi ki mooy ñëw ñu changé drap yi changé fauteuil dindiwaat tapis yi peinturaat peinturaat mur ndax xam na ni kii ñëw mooy kan gis nga loolu seen maam wax yal na leen ko yàlla defal dama xaw nag sonn wax dëgg yàlla waaw ah, may ñaan sëñ bi rek mu jéggal ma lim ko jiitu si kàddu da di ko delloon na kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Mansour dama la koy delloo di léegi incha allah gars yi d'accord ngeen dama sonn wallahi wax yàlla yàlla dina la yàlla dina la saafara léegi incha allah euh,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 وحبه وحفيده ووارث سره مولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن كافة أهله شرفائنا السادات وابنيه النجرين الشمسين جريجف لا فض فوكم ولا شلت يداكم ولا قامت عداكم yow alxaaji duudu yaag ñoom Pape Fall suñu jarbaat boobu nga àndal ak ñi ci des ñëpp lii maam mbay si sëñ Babacar daf ci illustré daf ci dëggal daf ci tegaat mu nekk ay tomb ci kaw araf yi ne lii bëgg-bëggu yàlla la ñun ñëpp maak sama baay ak samay rakk ak maam yu baax ak baay yu baax yi àndoon ak Cheikh Alxaaji Malik dañu ko donn ci rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam sallam te loolu nag mbokk yi moo fi nekk mooy héritage u bi لولا تخ سيغ بابكر سي ني ابن محمد المنصور ابن الشيخ الحاج مالك خليف جنرال دي تيجان نين نيب لا بوكال ميرمي سخنا ام الخير مغام لا اللهم امين سخنا ام الخير مغام لا باي سخنا ام الخير دي شيخ سيدي ابو بكر سي بايم لا تروندورم ndax bi cheikhul khalifa nan teuf mohammedul mansour Mouhamadul Mansour ne tëf ne Cheikh Sidi Aboubacar si loolu daw na yaram mbokk yi nañu fàttaliku loolu loolu waral kàddu yu fi sëriñ Pam Khalifa Cissé jib jibal sëriñ Mansour fekk ko ci monsieur le préfet kontaan nañu géey ci sa kàddu rafet na yiw na tedd na te vocabulaire céleste la nekkul rek vocabulaire terrestre dafa nekk vocabulaire u asamaan ak suuf tey dellu ci rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laa laaxirati xasanatan wa qina azaban naar te ku yàlla ni boole na la ci ñuy wutu président ñeneen président yàlla fal ko comme ci jële ko ci qulillahuma malikal mulk waroo bàyyi waroo waroo bàyyi yàlla gannaaw ndax moo la déy lam la déy moo la fal lam la fal te mooy borom mbir mi li ma nin mulkul yow ma ëllëg kenn du dégg kenn ko dul yàlla lillahi alwahid alqahar sëñ bi wax na ma ni aaye bi moo tax mu gëm ni yàlla rek mooy fale nee na ma ko lu tax mënu ma Senghor moo tax ma gëm ko mun ma def nañu lu nekk pour Senghor bañ falu waaye Senghor sëñ Babacar jàppale ko sëñ Fallou jàppale mu daal falu toog fi ba mu neex ko mu daal di dem ndax aaye boobu loolu tax si discours yi dañ ci war di boole yàlla nous sommes dans un pays laïque c'est vrai mais yàlla mooy décider yàlla mooy décider mooy décider pour catholique bi mooy décider pour juif bi mooy décider pour musulman bi mooy décider pour animiste bi mooy décider pour ñëpp ndax moo bind ñëpp ñëpp bàyyi nañ ko fi dem waaye moom bàyyi ko fi dem fenn bàyyiwu fi kenn dem fenn mu ngi toog ne patt rek pattaaral di yónnee ay ndawam al mudabbiraati amraan a ngi fi wan naa ziaatee ngi fi wan naa ñëpp a ngi yàlla nekk fi di yàlla te ñun ñëpp fi dañ koy bàyyi mbokk yi looloo tax sëñ Babacar ni naa ànd ak doomam yu baax yii Cheikh Mouhamadul Mansour dañ ko fi fekk ibnu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni moo yar sëñ Babacar Mansour ci ndigalu Cheikh Seydi Aboubacar waaw wajuram itam Cheikh Mouhamad ah, maanaam rakku rakku Cheikh Seydi Aboubacar di bàyyi alxaaji Mouhamadul Mansour sama trondo yar Serigne Moustapha noonu la mbir yi mas a demee sëriñ Cheikh a ngi nii di doom di jarbaat ci xalifa bi comme ni ko sëñ Pape Cissé doone comme ni ko sëriñ Pape Babacar Sy bi ibnu Cheikh Abdoul Aziz Al Amin mu tedd mi doone ndax maam alaaji Abdoul Hamid kan mook Cheikh El Hadji Malick nii lañu menoon ma suñu tàqalikoo moo tax yàlla boole seen deret seen rakk yi fi toog yëpp muy sëriñ Habib muy sëriñ Hassan Simi muy sëriñ Bachiru Male muy sëriñ Sidi Ahmed ibnu cheikh abdul aziz al amin muy sëñ mansour sarr defe naa ni sama bët yi leerul waaye gis naa ko moo toog na le tabaarakallaahu ah ak sëñ moustapha si al amin sëriñ habib fa tabaarakallah antum jamian la farqa bayna si wala njaay wala jóob wala wele wala keneen نحن دحم لم لحم واحد ودم واحد وعظم واحد ومخ واحد مبدأنا واحد طريقنا واحد هدفنا واحد إذا هدفنا هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بواسطة أوامره التي أنزلها على قلب رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبواسطة هذه الأوامر التي انبثقت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأدخلها الله في قلب في قلوب أصحابه وآل بيته وخلفائه من بعده وشيخنا التجاني والشيخ الحاج عمر الفوتي والفاهي مايور محمد الغالي وشيخنا الحاج مالك سي بن عثمان وابنه ووارث سره الشيخ الخليفة أبي بكر سي وإخوانه الكرام ak ñi nga xam ne ñoo toogoon ci wetu maam Maodo te ñooñu ñëpp ay borom yi xam-xam la ñu woon dañu amoon leer ci gis-gis ak ci xam-xam am na sax ñu jàng ba soog ñëw ci moom ñu ñëw ci moom itam tibbe ci moom leer la ñu tibbe ci moom te ñooñu bi ñu demee bay dem seen doom yëpp loolu lañ leen nàmpal seetuñ ci woon ku sant si ak ku santul si mbokk yi maam Maodo dafa xamoon ni lii mission bi yàlla ko moom sëñ Babacar nee na loolu kon moo lay won ni ñun ñëpp dañ ci war a taxaw la farq bayna ibnin li Cheikh El Hadji Malick Sy wa bayna ibnin axara li ahadi ashaabihi wa asdiqaihi wa xulafaihi ñëpp ci bokk yam ñëpp bokk ci ndono li ndax walillahi miraasu samawati wal ard lépp day dellu ci yàlla te dana laaj maam alaaji maali dana laaj ay doomam dana laaj seeni baay ak seeni sëriñ ak seeni nijaay ak seeni lépp ku ci nekk yàlla dana la taxawloo bés laaj la la ma la santoon la ma jaarale woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana lan nga ci joué comme rôle te nga la ko gën a xam kon suñ ci tolloo tey sëñ Babacar gis ni magam yu baax yi dem nañu bu yàggul sëñ Mouhamadou Moustapha mu jëkk a dem te boobu bàyyam Cheikh El mi ngi fi bàyyim xaaji xabib mi ngi fi gannaaw ki bàyyim xabib dem gannaaw ba ko aw ba kër jiitoo ak xaaji mansour ak seen baay cheikh alxaaji malik seen baay seen maam euh, seen baay euh, maam mbër si ak ña ca des ak mag ñi tëdd fii ci baqiya kum ci mën a doon nag dañu nasoo woon nekk benn benn nekk nekk mel ni ay per yu bokk ci benn kurus nekk ca yàlla takke leen ko ñu ni deetawaay ñu ñëw ba 2017 sëñ Mouhamadul Mansour non sëñ sëñ Moustapha Dem defe naa 92. 93 sëñ Mouhamadul sëñ Mansour Dem 2012 Tegun ci dara sëriñ sëñ Maodo si Touré dem bu sëñ Hadi Touré moo jëkk dem sax sëriñ Cheikh borom xam-xam yu mag yoyu ñooñu di ay professeur émérite yoo xam ni soo ba léegi seen bind da ngay ci nit ñi ci kàggug Cheikh Al Hadj Malick si la ñu nàmpe ñu ni deetawaay teg ci juróom benn weer rek gannaaw bi sëñ Cheikh demee sëñ Abdul Aziz Al Amin saaxibul amaanati dem moo tax ñu tudde ko Al Amin moo doon ci mag ñi wóolu woon bay Cheikh Seydi Aboubacar Sy wóolu ko rakkam yëpp wóolu ko ay magam wóolu ko adduna yëpp wóolu ko la bay nga baal ma de sa pap Sëriñ Mor waaw baatu al amin boobu nga wax noonu duma ko bàyyi mu jàll foog ma leeral ko ndax tey bisu leeral la sa baay Habib Sy moo testé Serigne Abdoul Aziz Al Amine ba tuddee ko Al Amine dem ci Serigne Babacar Sy ni ko dénk ko kër gi naka la ko testé moom laa bëgg a dugal rek jox la nga continuer ndax yaa wax al amin sa Habib dafa xëy rek woo sëriñ Abdou bàyyi booba Babacar génne cinq mille francs ni ko Abdou Aziz am dencal ma cinq mille bi booba sa baay Habib mu ngi testé kan moo war a nekk porte parole lu kër gi kan moo war a nekk làmmiñu kër gi kan moo war a nekk loxo kër gi kan moo war a nekk tànku kër gi mu proposé ko sëriñ Babacar si mu xool Abdou Aziz ba wóolu ko mu ne waaye nag bàyyil ma testé ko génne 5000 jox sëriñ Abdou ni ko dencal ma sëriñ Abdou denc une semaine dellu ni ko bàyyi 5000 bi ma dénkoon de mu ni ko Abdou Aziz dencal ma sama 5000 mu am weer sëriñ Abdou ñëwaat nag 5000 bi ni ko bàyyi 5000 bi ma dénkoon mu ni ko dencal ma sama 5000 ñaari weer. sa baay Habib xaw ko gëddaale ni ko Abdou Aziz xanaa dénkuma la cinq mille sëñ Abdou daal koy woon ginnaaw xam nga nu sëñ Abdou def dem ca wuude ba ni ko dama bëgg nga ëwal ma ndomb gu dëgër ndomb goo xam ni dem ci jiital ay perméable mu ne ko ana gàllaaj gi sëñ Abdou génne cinq mille bi jox ko wuude bi wuude bi ni ko lii nag mu ne ko moom lay ëwlu mu ni ko galaaj gi laa wax mu ni ko cinq mille bi laay ëwlu ëwal ma ko mu aitual ko laxasal ma ci nag ay toile ba ndox du ko mu laxas ci ay ko ni di def dàkk ko ak ay toile doog koo dàkk ak ay këyit defal ko ko ndoom ba gu dëgër sëriñ Abdu ni fas ko billahi bi mu ko vous avez ndigam fas ko vous Abdou fait une gi buy nelaw fait lay nelawaale bu yew mom lay yeewuwaale Vous avez fait une moom Vous koy fait ndax ndox du ko laal ñu dem ay at fait Abdou mu ñew mu sama 5000 la soxla bi ma la dénkoon Vous Abdou wat une bi di tekki ndomba gi sëñ Habib gëddu ko ni ko sama cinq mille laa soxla mu ni ko papa sa cinq mille laa lay jox daal di muut yi ci ndomba gi ba sonn tekki ko ab bu paaka wala lañ set sëñ Habib ni ko sëñ Abdou Abdou Aziz sama cinq mille laa soxla mu ko déglul papa moom laa lay jox daal di xar ndomba gi topp ko ndànk di xar di xar di xar ba der bi dañ mu làqar ci kay yi làqar ci perméable yi rotti cinq mille bi tàllal ko ba mu tàlli ni ko bàyyi sa cinq mille la nii xamoon naa tey al amin dinañ ko tudd li Pape Cissé wax léegi nii tey wax dafa jot te tey ñii toog fii ñëpp day maa leen jur nii ma waxee yi tamit maa ngi koy jéggulu ndax laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ñii ci lañ bokk ndax ñooy samay sëriñ waaye nag li may leeral nii ci kaw kàddu sëriñ Mansour ak fi ma ko jëlee dafa mat a leeral sëriñ Habib ni bëreet jóg gis na 5000 bi de ni bëreet jóg ubbi armoire am génne benn registre ñëw teg ko di foyete di foyete di foyete ba egg ci benn place mu jël 5000 ba teg ndekete numéro 5000 bi moom la sëriñ Abou bindoon di xool ba xam sëriñ du dina jaay 5000 bi indi ko beneen 5000. مغول كو شيفر بر شيفر شيفر بو خالتي 5000 بي غيسكو تي ريجستر بي شيفر بو خالتي 5000 بي غيسكو تي بي ريجستر بي بام شيفر يمات من كو جيري جيف سي ماي ما ناك ما نم سيتي صباحي دال نيوكي دوك سيت سيغ بوبو كيف سي نيكو دام من دام لونو غيسول كون ورا ديغ ميسيون بي دام لو كورون غيسول غيسناكو من كو كان لا من كو عبد العزيز سا لوي دوخ لوتي جي حاضر بي دوخ كو looy dénkaane ci xadara bi dénk ko moo tax dégg naa ci làmmañam mu ni sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu dépense su atam sama loxo la ko daan teg te benn dërëm du ci manqué kookoy al amin asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii yëpp lii yëpp ci mbind ci mbind mi la ci leçon bi la lii yëpp ci mbind mi la ci mbind mi la ci leçon bi la alhamdulillah bi ñu amee shahid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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دانيو ورا ديلو ليب تي القران غيس لو ورا ليلي يالا ام كومو تاكل ميداي كي جامام بي بوكو نيب دي سيدلي مباخم لولو لو ماتون خام لا نيون تام ني جانغ تي ادونا تي ليغا خامني غارنا شيخ عبد العزيز با بايام غيس باي شيخ سيدي ابو بكر واخكو تي موم لام واخ تي موم ñun tam loolu dañu war a jàng bis li bis ni tey fas ko def ko ci suñu loxo ba ku ñu dénk ci dara nga fonk dañu la dénk su dee ci réew mi doo lekk alalu réew mi doo yàq alalu réew mi suñu dénkee kees doo ca feppatu di jël tus muy keesu réew mi muy keesu trésor muy keesu budget réew mi muy budget association yi muy budget entreprise yi muy budget ku mu mën a doon yàlla nga la topp allahu raqibun atidum ما يلفظ من قول قول ما يلفظ قول من ليله الى الى الى الى رقيب عتيد سوكو ديفي لولو في صلب موضوع لقائنا وتفكرنا بما يجب علينا ان نتحلى بها من الاخلاق المحبوده التي ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ جوليت دا ام لو خامني تاي دا فا بوك loolu la gis ci Cheikh Abdoul Aziz comme ni ko nga ko nettalee jërëjëf Pape jërëjëf Pape su ko defee loolu tax Cheikh ah, sëñ Babacar bi mu ñu yónnee ma ànd ak sarak sëriñ Habib si doomam ak ay rakkam ak ay jarbaatam ba ci da nga caan ñëpp ñu fekk si seen nijaay seen mag yi ak seen nijaay ci ñu ci des pour célébrer bésu soxna umu bi ñun en tant que xadratu Cheikh El Hadji al tijaani al ahmadi al muhammadi al rabbaani wane ni am nañu devoir ak wareef ak programme boo xam ni moom la fi mag ñi bàyyi te bëgg nañu ñu sax ci suñu teg ci suñuy tànk ba bañ leen di fekki programme boobu nag bés sëriñ Mansour yal na yàlla yokk leeram mi ngi ñii di ñu dégg fajar dama jóge tukki ñëw njaase gay woo soxna umm doomam sama soxna sa papa lay woo ma ne ko ak ah, góor gi dafa ubbi xaat mu ne ma ak ah, góor gi de amul nelaw ñu wàcc suba cuuy fekk jàkk ji soo a pare wasifa ñu ñëw ko fekk fii mu tëdd léegi fa tabaarakallah yàlla na yàlla yokk leeram bi ñu ñëwee fekk ko fi boobu tabaxaguñ ko nii mi ngi woon ci wàccaayu tabax barab bi te kenn xamul lu tax ma koy tabax gaa yi daal di ñëw di ko nuyu xam ni mi nga fa toog ñu tegal ko fauteuil ci wetu buntu bunt bu ndaw bi jóge ci néegam ñëw ci fii mu tëdd mu naan leen mu naan ñu ma ñu mu ne ak ah, turóon da ñëw ma ne ko am ah, dama tukki maa ngi soog ñëw ci sama tukki bi mu laaj ba nga wax ko mu ni mu naan leen gis ngeen lii ngeen jóge ñun ñëpp ñu jóge ci julli fajar lal malaanu wasifa mu pare ñu ubbi kaamil bi séddale jukki yi ñu jàng joxe dog ñaanal xadra bi ñaanal jullit ñi ñaanal Sénégal ñaanal àdduna bi loolu fii laa ko téyee sama loxo mooy li ma ëppal solo ci àdduna ak ëllëg àllaaxira li ñu naan nag sëriñ Mansour borom sañse beeg borom limousine bek borom léeg borom laa borom tabax bek borom étage bi fii laa ko teg suy wadd du ma ko yëg sama biti loxo laa ko teg suy rod du ma ko yëg lii ñu sëñ Babacar si bàyyil bàyyim Cheikh Alxaaji Malik si bàyyil ko bàyyil ñu ko mooy suñu ngar dajj ku ci nekk rek ku ci liggéey bég nañu ci sa liggéey am nañu xel mu dal ci yow moo tax bés bi mu nelawee kenn Bachiru Taal toog fii ci fajar googu sëñ Abdul Aziz Al Amin mu baax ma toog famille bi yëpp toog sëriñ Babacar Mansour toog ak sëriñ Maodo ñëpp yëm sëñ Moustapha sëñ Mansour sëriñ Cheikh mi toog sëriñ Habib Jamil ak yéen papa papa Babacar yéen ñëpp ngeen toog ak sëñ Moustapha mi Abdoul Aziz bi ñu koy denc kenn ba si toog ci banc bi tiim ko nii ñu ne ko na def ñaan bi ci saa si la loolu dellu si sama nopp ak sama xel maanaam bés bii de mi ngi may fàttali ndekete yoo dafa mel ni sëriñ Mansour yàlla wanoon na ko ni fii nga toogee di tuddal xadra bi li nga ko tuddal ci wàllu wareef ji fi nekk te ñu war ko donn sonn ci sàmm ko jox ko itte jox ko pas-pas mu gënal ñu ci lépp du ñu mën a am gënal ñu gànjar gënal ñu wurus gënal ñu jamaa ndekete place bi dina ko ko seedeel tey mooy fi ñu ko denc. hôpital ba mu tëddee. waaw ngi jégalu ci kàddu baax na si bés bi dañu war a xam lépp. bi muy dem France pour faju ji mhm. ñu ñu la yàlla boole ñu bokk ci yoon wa ak Serigne Habib. mu nekk hôpital américain Neuilly-sur-Seine ci waxtu timis mu war a gisee ak docteur bi mu ni Sëriñ Mansour dama bëgg nga ñaanal ma professeur bi ni ko dafa am lu ñu dab muy suñu waxtu julli te gis naa ni su may waree seet ba ba may pare julli gi dana faat te bu doon suñu sago bala mu ñuy gis ñu julli bi ko Sëriñ Mansour waxee professeur bi daf ko ni bi ma nekkee ci hôpital bi ba léegi kenn mësuma wax lu mel nii waaye jógal boppam dugg ci benn bureau collègue am ubbil ñu ko ñu lal la ñuy lal sëriñ bi jullee ak ñun foofu la ko yàlla moomee tey waaw même hôpital foofu la ko yàlla moomee tey waaw bi ma koy wax dafa ni ma euh, nanu jox yàlla li mu moom si ñun

te bàyyi nañ fi liggéey bi sëñ babakar Mansour nak ni loolu wareefu ñépp la te ku mu ci mëna doon li yàlla wax ci alquran waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasaruna bal humul yawma mustaslimuna wa aqbala ba'dhum ala baadin yatalawamuna yàlla dana taxawloo nit ñi ëllëg fekk coow li ne kur mu ne ñii ñan la ñu ne waa barab sàngam ñu ne téye leen ñu taxaw ñu taxaw ñu ne yéen da ngeen ci coow ñu naan ñuy ku nekk di sànni sa morom responsabilité bi nga xam ne moo taxoon groupe ba tardé famille ba tardé dëkk ba tardé réew ma tardé yàlla ni hey tey du affaire indi ay lay yéen a gënoon xam ni alxuraan wàccoon na waxoon naa leen feuille de boo xam ne mu ngi nii leer nañ layluha ka nahaariha te foo ñu toll ñu ngi koy ñaan sax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ne leen wax jeex na lay jeex na ñëw leen rek ñu atte leen moo tax sëñ Babacar Mansour nii loolu suñu devoir la ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun da nga wéet ak yàlla bés te yàlla unité njaboot daf ko amal solo wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kaana alaykum raqiban hadihi rahim allati baynana yàlla nee na may contrôleur bi may commissaire bi may commandant bi may juge bi may procureur bi may président de tribunal bi na rafet na rafet te dëgër ay at a ngi ñëw ci kanam ñun duñ fi nekkati ñeneen a fi nekk ci famille bi nga xam ni tey ñun ñëpp a ci bokk yam suñuy doom suñuy sët ñoo fiy nekk di toog ci jataay bii ñun dootuñu wax suñu wax fekk nañu ci biir suuf nañu bàyyi xel lool. lu mu daan faral di wax si. waaw euh, lu bari lu mu daan faral di wax. mu ni jaamu ji leen yàlla mu ni caaxaan baaxul mu ni cent mètres gii bés bu nekk kilifa romb ñu tëj fi njabootam te du ci mën tus dëgg la kon cent àddina gi ku muy të bu yàlla taxul ñuy wax jaamu ji leen yàlla jëf si boo tax sëñ Babacar jàpp na ni moog yéen ñëpp ak ñun ñëpp lii muy def ci rafaatal jumaa ji Quand le jumaa paré won 2904. du 1904 population ak démographie bu Tivaouane ak Sénégal tolluwul won fi ba toll fi mu toll tey ñu soxla lo xamni dañ koy yaatal waya jakk ji rek taxul bu jog renaissance scientifique culturelle ci ñang meeg ci lépp dafa wara taxawat ñu xeex contre ñak contre ndol contre fièvre yi sabablu contre rêve rêve waaw waaw ignorance contre réer loolu programme bu fees dell la boo xam ni tey lu bare alhamdulilah yàlla rek leen na ko fi ci njaboot bi fi ñëw ñu fi dëkk ak ñu jóge feneen te seen jur yi yaakaar ci mais dañ ko war a gën a feddaliwaat loo xam ni tey su jumaa ji pare njàng mi jolli ca kaw di wàllu diine dugg wàllu àdduna dugg ba xale yi sax dem ba fi génn imaam mën ci génn ku ñu jox masala sharia nga réglé ko ku ñu si jox masala ci wàllu miraas nga réglé ko imaamatu bi noonu ñuy ja ñuy jottali noonu waaye nañu defar njàng moo xam ni itam médecin dana ca génne ingénieur dana ca génne administrateur dana ca génne képp koo xam ni day taxawu am réew dana ca génne ndax xubbul watani min al iman te al islaamu diinun shaamilun wa taalimuhu taalimu naqiya taqiya naqiya tahira maanaam euh, éducation islam lépp a ngi ci biir al islaamu yes sumuliya la waaw dafa al islaamu yasmau bayna dunia wal axira wax nañ ko sànq ni yàlla ci boppam dafa ni am na ñoo xam ni dañu naan yàlla may ma àdduna àdduna àdduna wa min annaasi man yaqulu rabbana atina fi dunia fi dunia fi dunia fi dunia wa ma lahu fi l min xalaaqin te su demee àllaaxira du fa am benn cër ndax àddunaa koy tardeel wa minhum amna ci seen biir man koo xam ne yaqul rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l xasanatan wa qina azaba annar ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sariu lxisaabi ca waskuru llaha fi ayami madudat te suratul baqara kon adduna bi dafa war a dox àllaaxira bi tam ñu def ci liggéey boo xam ne itam su ñëwee daañu am yaakaar sëñ Mansour si borom daara ji dafa wax ne dañuy ñaan war a bien fi bien fait loolu nag c'est un programme boo xam ni jot amul bu ñu tardel suñu bopp ci yeneen ci waxi وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعلن الناس أمة واحدة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تقل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم non non ki mooy Jamil Thiandoum nekk ci daara Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha bi nekk Safas aussi produit même école bi ñu génne moom foofu la génne moom la bàyyam le sëñ Moustapha joxoon bàyyam jeudi bu nekk mu recevoir pendant quarante ans boobu muy dugg si biir suuf bi mu demee mën ma continuer ko bàyyam ak bàyyu Cheikh sekk bi ngeen gis goal de l'équipe nationale Maguette Seck ñaar yooyu la sëñ Moustapha ak ñeneen la sëñ Moustapha ah, ak Ousmane Ndaw bàyyu kii Moustapha Ndaw bii waa ak waa kan sëñ euh, mu tëddi waa waa nombo sàngi waaw ak nomba nomba jàmb gën nu nu fatigué le sëñ Moustapha joxoon jeudi soir waaw kon nag ñi ñaan yàlla rek ولو كان من القرون من قبلكم أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى قل أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو العقل ulu ilm ulu tamyiz fajaalnahu samian basira inna hadaynahu imma shakiran wa imma kafura Yalla, am man la milliards millions d'habitants si kaw 1 un milliard 500 millions milliards yàlla ni su ma neexoon ñu bokk ci six milliards yi mais suñu bokkee ci un milliard cinq cent millions yi man ma tax waaye yàlla di dem ba ci digg bi ni du man ñoom la ni wa ma kaana rabbuka li yuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun mu ni gis nga mag ñee dem tey su ngeen tooñoon yàlla ba muy bugg duma su xelam demee ci alaaji Malik rek mu dellu gannaaw su xelam demee si sëñ Babacar rek mu dellu gannaaw su xelam demee sama maam Mansour rek mu dellu ko laa su xelam demee sa maam Abdou ak seen euh, euh, ay doom yi leen topp yépp am na lu nu ruusee kon ñoom nekkatu nu fi waaye ñi ngi fii ba tey kon nag doomu mag ñi responsabilité yu bees yi am fu laa budde ñu assumer ko waaw te sa mbaay daf daan wax naan tariqa bi yalla may na ko lu may nanu ñun lu nga xamni li so soo si jot comme ni ko euh, Babacar Cissé doon wax léegi do tëdd rek sa kaw mu fekk la fa déedéet waaw moo bi mu laté dem mu ni affaire yi nekkul ci si kurus mi ngi nekk ci mi ngi nekk ci activité yi tariqa bi sa maam sëñ Babacar way ngëneel yi هذا الذي ضمن المختار شيعته من الضمانات فوز بعد أرماز فوز بعد أرماس ضمن المختار سيئته ناتي فوز بعد أرما سلمامني هذا الذي دعنا المختار شيئته من الدم ناتي فوز بعد أرما دمنا المختار هتوه ناتي فوز بعد سيختدان محمور بيت بزيك من محافله بين الإساء أيدي في غايات أقماسي ضمن المغتار هو من الدمانات فوق البعد طالبي سيخ محمور بيت نبي بذكر من محافله آه، بين, العيشة عين في آياتي أقمى سبا بكرنا هذا الذي مختار شيعته من الدمات فوز بعد أرماسي وفي العشي وفي الأبكار يسهده من يحفظون فضون فيا بسر لي سرنا بابا هذا الذي دمنا المختار شيعته من الدمانات فوز بعد أرماسي وفي العشي وفي الأبكار يشهد من يحفظون فيا بسرى سرنا بكرنا حسناتهم يور الروض ساتحة وإنهم في سواء وزن أستاذ هذا الذي ضمن المختار شيعته من الدمامات فوز بعد أرماسي sëñ Babacar nee na cheikh mooy ki nga xam ni almuxtaar yonent bi si boppam moo joxe garanti njob njobootam te bokk na si garanti yi nga xam ni moom la yonent bi garant bépp talibe cheikh mooy fawzu fawzu baada armas soo deewee texe dem àjjana mu ni foo maamurul bayti bi zikri ah min mahafilihi nee na taalibe ñett yoo gis puxus bu nu am rek daanu fa wéet di sikkër di tudd yàlla diggante timi ak gee foo leen fekk ak puxus bi lu mu tuuti tuuti luñ fa sikkër rek yàlla nangu ko dama mës dem Italie di gàmmu Brescia le lendemain waa daayira bi ñel jël si man ni ma tey dimanche tey le sunu bésu daayira dama bëgg nga ñëw fekke ko man leen sonn naa dee du ngeen ma ko muñal man ma déedéet il faut nga ñëw bi ñu ñëwee jël jël bi ma duggee fi ñuy defee xadara bi fi ñuy defee daayira bi nekk te yow église la église man leen lan moo leen indi fii njaga fekke na ko man leen lan moo leen indi fii ñu ni ah sa wayu maam bi rek maamurul bayt bi zikri fu nu zikkar fa yàlla def fa barke malaayika yi daanu ñëw ànd ak ñun du ñu gis leneen lu dul zikkar bi ñuy zikkar yàlla dellu si yàlla fu ngeen jóge ñu ngi jege Tiwaawan lu fa xew guddi soxna umu xayri bi la sama gaañ yi du ñu wax lan la ñaan ñoom de ñenn nu sa àjjana yi rek nu bëggu dem ñaanu nu leneen neenu sa safara bi rek la bëgg nga ñu nga teggil leen ko mu leen ñaari ñaan yi ñu ñaan yépp man yàlla may naa leen ko malaa'ikullahi maziltul minal kuramaan nee na ñi nga xam ni dafa am ay malaayika yoo nga xam ni benn fonction la ñu am si àdduna suñu yeewoo àdduna bi yëpp daan ko wër benn fonction amuñu beneen fonction si àdduna bu dul boobu dem seet fi nga xam ne ña ngi fay tudd tur yàlla ñu ñëw toog suñ fa jógee dem rendre compte yàlla te yiw bi ñu am si jataay bi ñi ngi suñu biir yiw bi ñu am si jataay bi duñ ko yóbbu bala ñuy dem dañ koy séddale suñ demee nag rendre compte yàlla mooy leur seule mission sa maam nag wax ni puxus bu ay tijaan am daanu fexe rek daanu fexe rek ba ba sikka si turu yàlla bi waaw waaye nag guddi na ba pare te waxtu yu ñëw na ba pare ma bëggoon rek wax di li nga xam ni moom la sëñ bi wax ñu am jàmm si réew mi des projets de développement xam nga pape bi dafa wax solo dafa le nouveau la paix le nouveau nom pour la paix c'est le développement ah, paix développement am ah. paix avertir na yi ala ma wahjurhum hajran ذرني والمكذبين أولي نعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليم يلا نينا وخوما لين سن ساغا يوننتي بي نين جيل سين نيكوف دي راي نيغا خامني نيوكا ساغا واصبر على ما يقولون dafa ne yonent مونيال لين لاي lay اي ay prophète ñëw nañu jiitu la fi wax na leen lu ëpp liñ lay wax te teewul remplis nous cette mission. Quand nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها جام جوج لما ني جانغالي سام باب داف سي دان انسيستي نان كونو ساغا نغا فايو ياكي لا ساغا يينا كونو دور نغا فايو ياكي لا دور ني message Bob, d'abord tan wax fo à mënti tok si aduna ñi wax kenn magasin bu ko def waaw muñ demal ma fayul message bobu moy le message de paix bi nga xamni ñun ñepp won nañ ko garder waye nak héritage bi وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم واو وما ألتناهم من عملهم من شيء waaw loolu la yàlla wax nee na képp ku nga xam ne kii comme jataayu tey bi nga nekk taalibe Tidiane gëm Cheikh Ahmed Tidiane fexe ba nandal sa ay doom wala sa ay njaboot nga dugal iman ci seen xol yalla ne na xëcc seen ay njoboot ñu nekk sa keppaar waaye dafa am condition tant que conditions yoon yi nee na dem mag ñi même su fekkee ni dañu gaaw tant que ñi ngi topp ci gannaaw mag ñi mag ñi suñ demee ba daan dellu si waat suñ dellu see daan nu yërëm daan fa

sama ne Mansour toog de Ce C'est pas Abdou euh, dans daf ma wax ben est-ce que d'ailleurs, tu ak un Abdou du ça pas papa est-ce que dit. ak que ma Abdou c'est l'académie des sciences politiques du Sénégal tu ne peux pas écrire l'histoire du Sénégal de toogoog et que Abdou lu

sama ay cousines yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi taxaw seen taxawaayu yaay liggéey ah ak mbooloo mi nga xam ni ñoo ñëw taalibe yëpp rawatina na jigéen xam nga pap Pape sa fan yi yëpp maa ngi maa ngi xalaat sama bàjjen umu xam nga fan laa ko doon xalaate maa ngi ko doon xalaate ci 8 mars ma ni ko sama bàjjen umu mooy sama 8 mars waaw avant nit ñi di wax di agité 8 mars moom mi ngi si woon dans une action pratique yal na yàlla yokk leeram

jàng fatiha salaatal fatihi ayatal kursi qul allahu ahad teg ci falaqi naa si sëñ Abdul Aziz Al Amin laaye woon na ma ci biir ca Maroc soo ko tëjeeg salaatal fatihi ñaanal xalifa bi sëñ Babacar Mansour rakkam yëpp muy sëriñ Maodo di sëriñ Babacar Abdul Aziz sëñ Abdul Aziz fàttewuñu soxna Safiyatu si Aboubacar soxna Aminatu si Aboubacar ak soxna Roqaya si Aboubacar ñoom soxna ay dëkk nag umul xayri Abdul Aziz ay dësi Abdul Aziz tabaarakallah Safiyatul Habib ak rakam ñoom jigéen ñooñu ñu baax ñooñu taxaw seen taxawaayu bàjjen yeeg ñaanal leen ñun ñëpp yàlla bu yàlla deñ di wàcc ay malaaka yërmande yuy peej suñu jotaay bii bu ci jotaay yu ëllëg bi sax ku fi andi woon aajo yal na ko yàlla faj ku andi woon tiis yal na ko yàlla teggi ak naqar te wuññi ko ku indi bor yal la ko yàlla fayal ku amagul kër yal na la yàlla tabaxal kër nga dëkk ci yàgg sa njaboot ku bëgg kër ci Tiwaawan yal na la ko yàlla yombalal ba ku nekk ci yéen am ci kër fii lañ ko ñaanee ren nag ñu déwén yàlla na fekk yàlla commencé di ko réaliser wala mu réaliser ko xale yi jàng yàlla barkeel seen jàng Sénégal yàlla def fi barke def fi sutura def fi teranga def ko ci njiitu diine ji ak njiitu àdduna bi këru diine yëpp ak xalifa yi nekk ci lislaam bi yal na yàlla defal leen jàmm ña dem ca daaka ba yal na yàlla sàmm ba daaka ba jeex ñu dellu seeni kër li monsieur le préfet wax sànq ci Ukraine ak Russie yal na def fi ba benn guerre du am suñu sous région bi yi fi doon yëngu yëpp ci ay yëngu-yëngu ko yalla dalal ba komkom koom bi dox nit ñi a dem di dem di dellu si ci jàmm ci فليعبد كبرك لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف sécurité su amul dara du am ku mi mën a ñëw loo indi ci xalaat ak yéene yal na la ko yàlla fajal ndi sëñ Abdoul Aziz Al Amin doon wax ne moom guddi gi euh, bëccëg bi suba su nit ñi ñëw ba ñu ni Tiwaawoon fees na dell baaba kër loo doon na ko wax démb ci jumaa ji ci julli ak juma ji ci bayaan bi sëñ nee na daan na toog julli ñaari rakk xëy na wala ñeent yàlla xam ñett la daan julli toog tàllal loxoom yàlla toroxlu ci kanamam ñaan ko ci barke mbooloo yu tedd yiy ñëw te dara indiwu leen lu dul yàlla ngir yàlla ak sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak alu baytam ak asxaabam sopp cheikhuna Tidiane yi Mouhamadul Xaadi Cheikh Alxaaji Maam Alfa Mayra sopp Cheikh Alxaaji Malik ak Cheikh Seydi Aboubacar si ak i rakkam ak njaboot gi fi nekk ak mag ñi fi tëdd tey nitu yàlla sëñ Abdul Aziz daf ci daan roof ñaan ñaan yàlla may ko nangam ak nangam ak nangam te dana na seetlu ni lu mu ñaan yàlla dina ko nangu ngir yàlla ak mbokk yu tedd yi nga xam xolu cofeel moo leen rëgët ak yërmande ci njabootu bi kon monsieur le préfet jërëjëf kon ñu jang ñaan gi euh, te ñaan ñu fekki ko déwén soxna kala mbay mm. yàlla ko yàlla defal jàmm ci magam yu baax yi di soxna ndafi ak soxna roqaya soxna ndey associé seen rakk ju baax ji jiitu yàlla ko yàlla yërëm yokkal welam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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رب يا معين يا ملك يا معين يا هادي يا أحد يا صمد يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا علي يا عظيم يا الله يا سميع يا عليم يا الله يا غياثنا عند كل كربة يا الله يا مجيبنا عند كل دعوة يا الله يا معاذنا عند كل شدة يا الله يا رجاءنا حين تنقطع حيلتنا يا الله يا غياثنا يا الله يا غياثنا يا الله يا غياثنا ها نحن عبيدك الفقراء الأذلاء الضعفاء المذنبون المقصرون المساكين خلف بابك الكريم الذي لا يخيب قارعه تقبل منا دعاءنا وأصلح لنا أمورنا وشؤوننا وأحوالنا كلها في الدنيا والآخرة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام واقض لنا حوائجنا واقض عنا ديوننا وارحم موتانا واغفر لهم واعف عنا وعنهم وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وفي وطننا السنغال أنزل على السنغال السلم والسلامة والأمن والأمان والنجاة والنجاح والفلاح والتوفيق والتيسير والتمكين والنصر والتأييد والخير الوافر العامر الشميم والخير والخير الشامل العميم اللهم أنزل شأب برضوانك على عبدك الشيخ الحاج مالك وأزواجه وآبائه وأمهاته وعلى جدتنا سخنة رقي جاي وجدتنا سخنة صفية جاي وجدتنا سخنة ياسين جاي وجدتنا سخنة أنت سال وعلى وعلى سيدنا سيد احمد سي وازواجه وابنائه وعلى سيدنا الشيخ خليفه ابي بكر سي وازواجه وابنائه وعلى الشيخ الحاج محمد المنصور وصنوه محمد الحبيب وعبد العزيز واخواتهم من النساء وعلى كل من كان من احباب الشيخ الحاج سي واتباعه واشياعه وانصاره ومن الذين كانوا يطوفون حوله لخدمه الدين الاسلامي الحنيف ولرفع رايه الاسلام عاليه خفاقه ولرفع راية أسلوب ولرفع أسلوب شيخنا التجاني وطريقته الغراء ولرفع راية هذه الحضرة المالكية الأحمدية التجانية المحمدية الربانية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطردا ولا ولا محروما ñu ngi ñaan ñiy indi ñiy ziyaara suba nañu daw ndànk bañ a bañ a bëgg a dajale xaalis bu ñu naan damay dellu Dakar amaat beneen beneen somme nañu ànd ak tey ak dal wa maa min daabbatin fil